رب العالمين say say Assalamualaikum warahmatullah. Eh, sang bi mbake bala. Ñu ngi ñuy jël siyaar baax mbokki Manaarul Huda ak di wër ci ñoo bi gëna sel. di ñaan sun borom tabaaraka taala yok sa wër fiq fan wi ndongo lo xamne nak dañ ko yobante mu ab diwrinam. Eh, jëwrinam di ko lott ci wax ja Euh, ñàkk ko matale itam na mu ko daan defee ndax dafa nekkan suñu kanam matale ko lool te lépp di yow moo tax it mu xaw a diis ci ñun lool ndax wax moom mënewuñu ko gars yi ku ma ko ci jalax mu ne ma euh, yaa kàddu ga ndax lott naa ci lool ñun nag duñ def lu may di sant sant goo xam ne nii amut tàmbali te amut fu mu yem am na tàmbali waaye amut fu mu yem ah, la ca dolli ko mooy cant gi day loo xam ne dañ koo làmb daj ko xool ko gis ko yëg ko itam muy li gën a wér ah, nit su taxawee ci benn barab jóge fa nekkaat ci beneen barab xam ne ñaari barab yi mu nekk am na ko kon sant rek moo ci war cant googu nag du lu ñuy wër du lu ñuy làmbatu du lu ñuy leneen dañ koo daj ndax kenn ku nekk ci ñun nii xam na fa nga nekkan kenn ku nekk ci ñun ñi xam na nga doon jiim te mënoo ko kenn ku nekk ci ñun xam na la nga doon bëgg di ko dégg di nësër te xamoo te ko kenn ku nekk ci ñun ñi xaman na nekkan na ci benn mbir di ci nekk te xamul ràññeelewut dëgg ak neen te loolu ku ko ci xam Mbàkke Bàlla sa jëmm a tax kon suñu cant moo tax ma ne am na fu ñu koy tàmbali waaye amul fu ñu koy yemee cant gi lépp itam ñoo ngi ñaan su mboroom tabaaraka taala mi nga xam ne maanaam lépp moo ko yor te lépp ñu am suñu mbir mépp ñu aj ko ci yow te yaay suñu mbir ci lépp ñu ngi ñaan su borom fekk soo fan ñi nga xam ne ñooy mbokk taalibe yi naa Minanul daal ak ñi ko wër ak soppe yépp ñoo ñëw di defab siyaar di yeesal sunu njëbbal di tuub sunuy bakar ak sunuy rëcc-rëcc ak sunu ñàkk matale sunu taalibe ak sunu doye di ko tuub gën nga day nga jéggi dayoo ah, ah, wax Mbàkke li wax ne maanaam wax dañ ko mën ndax jëwriñ daan tooge fii jokkoo nan mu ne ma li ma la yóbbante mooy nanu ñaanal wér ak fan ndax xam naa ne moom wax yàlla ku ragal dee la moom mais ne daal moom moom nañ ko ñaanal wér ak gudd fan waaw mu ngi ñaan nag loolu lépp ñu nga dugalaal ñu ci ñaanam googee liñ ci dolli ko maanaam kenn ku nekk ci ñun ñii yaa nu teel sa bopp nga gën nga gën ñoo téye ca gënam anam gëm gën rafete ndax li may wax rek léegi amul kenn ku mën dara ci ñun bu suñu bët fettee ban mën a xàmmee neen ak ak ak lay dëgg ci la li may wax tam ba léegi mooy kàddu yi rek kenn ku nekk ci ñun ñii ku xeeboon la maanaam kun so ku safu kun sawutal la ndax mbir boo xam ne kenn ku nekk tey ba nga ko tàmbalee ñëpp dañ laa woon ginnaaw say mbokk ak say dëkkandoo ci yenn ñi ñàkk xam ak ñi nga xam ne dañuy dégg te xamuñu waaye ba nga xamee ne teg nañ seen bët ñoom ñëpp xam ne lii mooy dëgg ñi ca ëpp. te suñu borom dogal nooyal seen xol wàññi ko nañ coo ñu bëgg mbàkke fépp gën a nooy ndax nooy na pare yaa nu ko daan wax ñi ngi baalu àq ñépp nag te mbàkke bala ñu ngi lay baalu àq di tuubal ñu ngi lay baalu àq di la tuubal ñu ngi lay baalu àq di la tuubal di ñaan nga seen sa jëm ba faw nga seen sa jëm ba faw sutura si moom am na tawféex yi am na kaaraange gi am na nga yokkal ko ba faw wax ji dama lay wax ñoo ngi koy yemal foofu di la jégalu bu baax a baax a baax di ñaan tam suñ mbokk soxna yi nga xam ne ñu ngi suñ ginnaaw di ay jàmbaar fu nekk ñu ne suñ ginnaaw lu nu lu nu lu nu wax ñu suul ko gën ñoo doon jàmbaar fuuf ci nañu doxe nga gën ñu leen a ñaanalal bu baax a baax a baax ndax génnu ci ñaan gi ñoom itam ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di jaajëfal ndax muñ nan seen kamtalaay kàttan ñu nga góorgóorlu ci loolu man kon ñoom itam yàlla leen su borom tabaaraka taala fay bi jaay si sidna Muhammad ak ñi nga xam ne ñooy mag ñi ñëpp ak euh, ñeneen ñi nga xam ne itam war nañoo ñëw te mënuñoo ñëw suñu borom dool leen tawféex dool ñu ci xéwal yooyu dool ñu ci kaaraange jooju dool ñu ci sutura jooju Mbàkke ñoo ngi leen ñu maa ngi leen di delloo nuyoo ak ab siyaare di leen baalu xaq te di leen baalu xaq te ñaan suñu borom boo leen jël jëf yi yëpp matale na tarafet na benn baat nag boo fi wax muy diw daa ragal dee dee mu duñ ko ragal noonu feet noo ngi ci dëggal fu mu neex ne ci moom lañ jóge ci moom

muy neex ci suñu xol daja gaa dàq lépp daja gi moo dàq lépp lépp lépp lépp sëñ bi ji jéeg fitna jéeg naqar yeeg tiis yi yii nay neef yi bu mu doon bakkan bu mu doon bànneex bu mu doon àdduna bu mu doon leneen nay li mu bëgg nu di ca ne bis bu ñuy dajeek moom mooy dàq ci bis yi mbëgg rek mbëgg rek mbëgg rek mbëgg rek mbëgg rek fu ñuy laxase jëm ci moom de mooy dàq ci noonu lépp waaw ah, mooy dàq ci noonu lépp lépp li nu war daal mooy leen dëggu te dëggal rek loolu daal laa sas bokkum taalibe mu ne dëgg te dëggal rek waaw ah, dëgg te dëggal rek bu loolu wéree nan dox tawee te bañ a gees ci moom la jëm te buñ dajeek moom xam ne lépp dëgg la waaw ah, yow ma tubla sarair su boobaa danañ xam lépp dëgg wax nag lu jafe la waaye nag kii wax moom xam na ki def ci moom li tax muy wax laka sukur wa ridwaan walhamdu sarmadan wala fakkali fii kawlika laahu wa rabba leer na fi noonu de laka sukur wa ridwaanu minni wa sahidi metti woon na de waye mom de sant ak gërëm rek ah te booba kat wa sahidi raqibun hatidun fi jasirati ma yumba ñaar ñoni dong la fa dun wétli ko borom ñoom la don séral ak cantam ci borom jeex nañ ci koku tak ko and ak mu jeex ci wa salam gis nga yàlla si tubaab nekkee dem wala usulul xalq wala taxul dañuy naxaaxaat bi ma taxi la si am man nga xasee sama njaboot tas nañ samay kër tasaaru la ngir fu mu ñëw dugg suñu borom waaye nag comme tasaaru ba dañ bànn ay góor bu fekk baalu ñu góor du fekk dara góor ñooñu yéen ñoo ne ñoo ma xam rek ci ngor ñu koy ànd ak moom ak lu mën a am day ànd ak moom man de sama pastèque bañ ko sama ni mu bëri waaye biir na ma ne jiw jiw naa waaye biir na ma ne may naan day ca kaay naa ne ji biir na ma biir na euh, ku daw jëm si moom dana ko seeg man ci li ma mën waaw naa li ma déglu lu ma jaar rek bu bu laajee bakkan bu wàllu dana war dama ne loolu def ci suñu xel bu baax a baax ma ne ma ne ñu day gore diine du bëri mukk am-am wax sama baay dafa am ne keroog dañ koy gis sëñ bi moom la ñuy xam maam sànq ma naa ko mu ne yéen ñi toog fii yëpp bopp yu ñuul ngeen yor seen jamono boppam ngay xam mu ne bàyyi na ñuy ak man ñaan ñu ñaan ñëpp ñu suñu bopp weex na dara baax na rek mooy ci bopp ngeen mu ne kon xam ne ne àddinaan seen dam te da ngeen dox jëm dama ne nañ li wax loolu pour ñu bàyyi ne xel bu baax a baax sang bi tey bii li ko réglé ñu teg ko suñu kanam teg ko suñu bakkan lu mu jaar mu jaar loolu mooy li wér te dama dama ne sama xol maa bëgg ñu xam ko bu baax waaye buubu nag bu ñu tënk nga takk sax sax loolu gis buub mu day dem ba jeex teg koo xam ne day wax benn saa doon taxaw tey boo wér xaay ma def mooy ñu ko takk àndal ay góor dong lañ nañ doon ay góor aussi ñu dund ci góor dee ci góor ba jeex tàkk loolu foofu ci mbooloo bu ñu nekk ñaar daw lañ ko war a mën nit ñi ñu fekk ñu bëgg ñu daw lañ war a mën waaye yu jeexee la ñu war a gis bu dee ñu ngi si jàmm te moom dañ kaa war di teew loolu dafa doon lu ma ñor loolu dama ne lañ doon ay góor wala wax de diine ko mu dem rongo mu mu mu mu mën a mu mën mu daan rongo loolu mooy waa bu mu dimbali ko ci suñuy xol dimbali ko ci suñuy xol ku dem ku dikk koo gisal koo gis mooy man de lépp lu bokk ci baatin dama koo déggee ne dama koo def ci sama deret ak bii pour ñëpp defee ne sa mag bi góor wala sa baay saa yu lu mu mbir mi ko xaw nga gis bu ñu ko tegee foofu rek ñu jeex maa ngi pour baax kàddu yi nga xam ne maa ngi ko yëkkati waaye loolu rek laa bëgg a teew jërëjëf. sëñ bi nag doon na wax ne ki toogoon fii ne suñu karaw yu. man yàlla dimbali na moom mu ñuuloon bay weer fi kon dimbalum la te lépp moom la yàlla nañ ko weexal ñun ñëpp ci kanamam te kenn cee bañ cee gis sa bopp te lenn bi laa xam ne man maa ngi leen koy dégg di taalibe bi gën a xeebu ci moom ci ay taalibe di leen diral lépp ne moom mi du moom keneen la ku bokk ci moom koo xam ne jaxasoo naa ak moom ba li bëgg kooku bëggale ko mu yàlla lu leer laa leen wax waxuma ko nag ci ngeen nay sëñ saar taalu bele wala man moom dongo bu ñàkk solo laa moom waaye jëmm naa ne ba ma fi nekkee ba tey xam naa ci moom loo xam ne ni xam naa ne lu moom yàlla la parce que lu dul yàlla mënul li muy def kii lu dul yàlla mënul li muy def man gis naa ne lu mu bëgg mi koy am te nit ki nag bu dee lu mu bëgg mu ngi koy am xamal ne loolu yàlla la bu nit fi mu ne ni bu ci kenn gis sa bopp nag ci li muy def jumaam yeey saalam yeey otoom yeey ñëpp ci toolam yeeg yëpp xam leen ne yàlla la parce que toog naa koo xam ne ni boobaat léegi yaakaar naa lañu mot ñaar fukki at dama woon de c'est-à-dire kooku daf maa su ma mës a yónni ci moom ba ma siyaare ko ba pare ba mu may génn di ma gunge bu ma ñaanalee ba pare damay lëng dama cest mu ne ma kooku de lu mu bëgg yàlla dina ko defal kilifaam la woon te kooku am na lu mu doon bëgg te amu ko kii moom lu mu bëgg mi ko yàlla nañ ci teg suñ bët na li ma leen di wax nii bu fi kenn andi dara ba def ne dara nga ci parce que moom ci boppam xam ne ne moom du ci dara comme du ci dara nag kon kii def mooy def te yàlla mi yàlla yàlla nga xam ne du jeexal dara kooku koom kooku lu mu bëgg dina ko am kii jet privé day bay boo ngeen gis ko mu teg ko fii wala fu ko neex xam ne moom yàlla parce que koy jox kenn la te kooku du jeexal ku dul jeexal nag kooku moom lu mu bëgg ci moom mu am ko maa ngi lu ci kàddu yi nag man moom xam ngeen ne nekkuma fii sëñ Baye mi moom xam na ne lu ma jox micro man li may wax man day nekk ci man man bala maa wax dara day nekk ci man ba ma nekk moom amul lu ma sàkku amul lu ma koy laaj amul lu ma bëgg ci moom du lenn du jàng du wilaaya du dara xam naa daal man it li ma bëgg yàlla mu koy defal. gannaaw jëmm xam naa yàlla na ci teg loxoom te xam naa ne jëmm ji la yàlla nañ su borom dimbali nag ñu yàgg ci départ gi te kenn bañ ca gis bopp ñu ànd ak moom ci liggéey bii ci li ko yàlla bëggale yàlla nañ yàlla boole dimbali gën ñoo comme ni ko sëñ bi waxee gën gën ñoo def teralal ñu nekk ci ngi ci bu baax waaw wax dëgg yàlla lu fi waay def rek ñun nga ko kenn ku ci waay def rek ñun nga ko defal waaw parce que moom mii lu randu rek leneen topp ci boo leen seetlooy mbiram lu randu rek am na lu ci wet kon kooku am na lu ko yàlla defal kon ki ko koy defal noonu nag moom la may du moom parce que moom it da koy leeral de gis nga kii wax na ki yàlla taaralul kenn àjjana de moom mi danaan leen kaay leen di dem ku ci nekk nag li ma lay wax bay boo nga nekk ci man nag li ma nekk maa ngi ci yàlla nañu yàlla boole dimbali man maay Kër Bay Fall sëñ Bay Diop moo ma ne ma ñëw jotali ay kàddu kàddu yi cant parce que ñun ca ba commencé ba léegi dañu ñëw ñun gàmmu bi ñun la ko féetalee waaye suñu borom dogal na mbokk taalibe yi am lu ñu def ñu ne nañ ñëw joxe si àddi yi Mbàkke Balla yàlla na nga fi yàgg yàlla na nga fi yàgg wér te ku nekk nag nekk ci keppaar gi man de maa ngi ci man moom maa ngi ci moom yéen ñëpp seenu taalibe la maa ngi ci nañ ci bokk nekk rek te gis ne moom yàlla la maa ngi ci baax barke daal ñu yàlla gën a dimbali sans intérêt nag am na ku waaye dañu xam na sans intérêt man moom <laughs> moom fu mu ko nuyu ak ñeneen gis nga nit bu nekkee ci dara bu mu ci bu mu ci bëgg lenn na na ko def ngir yàlla rek moo tax bàyyi fu ma ko nuyu ak yenn gars yi léeg-léeg am sax ku may téléphone ne ma sans intérêt ma ne kooku ma ne man moom loolooy sama kar nit lu muy defal nit loo mën a nekk nit mandul ci mbiram te bañ ci wul intérêt te yam fi nga war a yem man de moom laa ànd ak moom saku moom ne lii sëñ bi wala léegi déedéet waaw nit nag gis nga yenu loo attan aduna noonu ngay doxee waaw yal nañ yàlla gën a dimbali ñu bañ ci bañ a nekk fenn di taamu ay wilaayaat taamu ay sangal yooyu du dara nit da ngay nekk taalibe ànd ki ngay àndal te yàlla rek tax te am na ku fi tudd léegi baat benn baat bu am solo ci biir muy gore nit day gore nit day gore ci lepp da nga jégalu nak yal nañ yalla gën dimbali ni rafet na lool sax suñu sang bi yalla nañ ko fi yalla bayyi parce que ñun rek ko am kenn am ko jërë ngeen jëf qalbi wa والحديث bi قلبي وقالبي ila al kitab wal hadith إذ انصرفت قلبي وقلبي بمال المصطفى